salaamaaleykum maa leen di siyaar yéen ñëpp man li may wax nag jarul nuyoo bu bari waaye dama leen di yëgal na rek euh, ñu koy waxeeti Aida jàlloo wax dëgg yàlla jàngal nañ ñun ñëpp nu ñuy gëmee nag moom nag mooy ki gën a gëm ci kaw suuf ci gën a gëm ab sëriñam ci kaw suuf di dox ci kaw suuf mooy Aida Diallo moom de sëriñam bi lam ko waxoon muy waxi dof lam ko waxoon muy waxu koo xam ne wérul normalul bopp bi toogul benn place moom de loolu gëm na ko mu ngi koy doxe te amul mbindeef goo xam ne ci kaw suuf yaa ngi noyyi dox ci suuf mën nga koo teree doxal ngëmum moom jàngal nañu ñëpp ñun ñëpp jàngal nañu mu ñuy gëmee fii kuy dox ci kaw suuf ne murit nga yaa gëm suñ tubaa waxoo dëgg ak koo mën a doon waxoo dëgg sëriñ tubaa jaraluñu dara tus lañu sëriñ tubaa jaraluñu ay da jàll mii wan nañu ne yéen ñëpp ay naafeq ngeen yéen murit ñëpp ay naafeq ngeen xaalis ngeen gëm alal ngeen gëm ay jéeg rafet ngeen gëm kër yu rafet ngeen gëm ay ay oto yu rafet ngeen gëm xalal alal rek àdduna moom ngeen gëm waaye gëmul leen sëñ Tuubaa ndax ay da jàllo xale bu ndaw bu xonk cur teg ji waxi murit yëpp sànni ci àll bi di def lu ko neex di wat di am fit am jom ak fulla ak fayda di def lu ko neex ak fu mu ko neexee sëriñ bu bu bu sëriñ boo mën a doon ak koo mën a doon ah, bu la bëggee gis dana la gis indil lay tufeem indi lay million ngay nekk fa di nasal baataka kii di kii di jéem a yaaw yi ay baatin wala jéem a yaaw yi nan ay sëriñ ngaak ay dangaa tegu ci yoon ak nangam dañuy fenn gëmuñu sëñ Tuubaa fii ku fi gëm sëñ Tuubaa man gisatuma ko fi koo xam ne sëriñ tubaa jaral na la dara gisatuma ko fi kenn laa fi gis na xam ne sëriñam jaral na ko ba kenam muy Aida Diallo moom daal jàmbaar la jàmbaar dëgg la. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, wax jooju ngeen dégg mi ngi tukkee ci koo xam ni euh, ci njabootu Aida Diallo la bokk di ngeen wax ju bon ji wax ak wax ju ñaaw ji wax yépp dégg ngeen ko xamee sul nag mooy kan xamee sul ab toom waaye. Euh, loolu mu wax rek mooy li leer mooy ci waa kër Aïda Diallo la bokk te loolu mu wax da ko fësal waaye mooy li ñuy waxante ci seen biir moom la Aïda Diallo di waxtaan ak ay stafam moom lay waxtaan ak ay taalibeem mooy lay waxtaane ak jegeñaaleem donte fësalu nga te looloot moo nekk ci ñoom ndax Aïda Diallo gëmut kenn gëmul Sëriñ Tuubaa gëmul keneen ko gëmul Sëriñ Tuubaa moom te murit nga yaakaar naa gëmu keneen Cheikh Béthio mom muy wax sax gëmu ko ndax bu fekkee ne seexaloon na ko yaakaar naa seexal ga ci ndigalul sëñ Sidi Muxtaar dellu woon na ca gannaaw kon su wëlbatiku waatee di di saxalaat loolee di ci turu Cheikh Béthio kon wane na ni ab naafeq la waxul dëgg mébétam ak yéeneem nag mooy ñàkkal fayda yoonu murit ña ca gën a kawe ca kilifa ye mu wanee ne luñ dara mu wanee ne bu wane waxee mën nañ caa dellu gannaaw te loolu lu ne eh, jaral na ko ko te te ngeen seen bët ndax bi mu demee mun taxaa ay ñaari yoon yoo xam ne waxtu wu ne la ko Serigne taxaa wax lu ñëpp dégg la lu ñëpp xam la waaye dana defi fexeem ba dellu siwaat fa wala fexe ba eh, gisaat sëñ taxaa te eh, du tax la mu ko diggaloon wala la mu ko waxoon mu def ko du taxoon la mu ko tere mu mu Eh, kooku foo yóbboon nag eh, ba mu génn di ko layal moom la njëkka troxal ndax moom nee na dem na fa ba gëstu ko ba gis na ni li ñuy wax lépp ay fen la la ko sëriñ bi digaloon maga ca la mu ko woon bana ko ba sëriñ ba waxee loolu ñaari fan la ca teg def loo xam ne moo ko njëkk a def ci àdduna mooy màggal feetuk Saint-Valentin feet goo xam ni eh, du feetuk jullit bokkul ci aaday wolof mu di ko feet ne ci lañ ko xeexalon yeen ñëpp gis ngeen <clears throat> fet ga mo ne sama japp ni orgie la ndax la ngeen di gis ci biti muy zahir lay am ci bir moko gëna bon fop fofu libertinage fa am ak ak ak ak ak ak ak orgie mo fa am leen am ko xeyna lool mo neex nit ñi mom lañ ko topé toppee eh, waye dañu wara a xam ni eh, ñun njabootu Serigne Touba war nañu faggandiku baaxa baaxa baaxa baax baax ndax day bokku ci yoonu Serigne Touba ku la gis sukkal la raamal la màggal la yëkkati addiyaam jox la ko loo mën di ñàkk ci àdduna day war nga ko muñ waaye alali àdduna warulaa jaay jaral ah nga nga nga jël cër boobu di ko jaay ah di ko jënd ay da jàllo ngir alal jum yor alal joo xam ni la ko ko may weesuut ci sa turu maam la fen tappale ca ba am loola nga wëlbatikuwaat yow di ko ca sarxoo ko yàlla nag ñàkkal jom mel ne kon moom yow am wàccum ay dajallo daanaka ngay jël di ko naanaat rek loolu moom ak ñàkk jom mun ko weesu. kon ñi war kilifa yi nañu seetluwaat seen bopp rawatina ñi ay ñi ay kilifa ci ñoom xam ni lii àdduna da ko jarut lu tollee tarfatal ayni eh, ngay jéem ngay def benn acte wala ngay wax jenn wax joo xam ne lu yàq lan dara la ci yoonu Sëñ Tuubaa te ña tax nga di ko def ngir alali àdduna dañ la ci dul jox sax nag loola doyal dañ la cay tuuf rek bu ëllëgee Eh, nga gën koo bëgg bu ko defee leen topp ñu la cay rootalal di la ca sànni comme xaj rek nga topp ci ñoom di yàpp yàppi am leen fulla ak de bu loolu jàllee nag affaire ay da jàll si boppam laay avertir ndax Cheikh Ibrahima Fall ni gis na ko ci gént eh, ñoom xanaa moom li ñuy naloo moom li ñuy yow moom bëriwut xanaa li ñuy gént bëri lool waaye Cheikh Ibrahima Fall day na xam ne moom seexlu na ko ba di ko feeñ ci gént ndax moom nit ku bon la ay da jàll ab xaj la ab saay saay la ab wéyu la. waaw man mi gën a bon ci Baye Fall yi sax day gën a bon ci njabootu Cheikh Ibra Fall day man seexlu naa Aïda Diallo ba di ko feeñu moo xam gént la moo xam réalité la li ma koy avertir nag mooy na baax seex Ibra Fall fenam yeeg kàccam yi yu mu yor fas yéene far ko yéene def muy projet de société lu ko neex na ko wax ku ko neex na ko tudd mel na ci génn Cheikh Ibra Fall bu ci génnewul Cheikh Ibra Fall de ñun njabootu Cheikh Ibra Fall yëpp takku nañ dañ tegal ndeyam te duñ ci dellu gannaaw ndax nag lii nu yor nii bu fekkente ne xemmem na ko ba mu jaral ko lii ba mu jaral ko wopp ñun ñi nga xam ne ñoo ko moom defe naa ni war na noo jaral ñun ñu dee te jaral na nu ko bu bàyyiwul tur Cheikh Ibra bi muy fenee ka kàcce dañ tegal ndeyam waxuma la Cheikh Ibra Fall waaye jaamu Cheikh Ibra sax du ko ci ci ndax du ku baax ku bon la loolu rek laa amoon ci lu ma koy wax ne di ko avertir nag ne ko man nag Fallou Fall Mbaor je ne reculerai devant absolument rien aucun obstacle pour tegal nday mu bàyyiwul Cheikh Ibra Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah